actu buzz salaamaaleykum nuyuwaat nañ leen gis ngeen comme euh, ni ngeen ko gisee ci image bi rek ñu ngi waat fii kër euh, docteur Abdoulaye Diallo ki nga xamante ne ni nee naa leen léegi ñëpp ràññee nañ ko ci li nga xamante ne ni ci loolu lay yëngatu muy feebar yi nga xamante ni day da ngay dem hôpital mais da am problème pour faj ko parce que ñoom dañ koy calmer rek waaye moom boo ñëwee fii nii da la koy euh, traiter ba nga xamante ni tey dootoo fi delluwaat. ndax dalay jox li nga xamante ni moom moo di traitement bi ci wax docteur nag tey dañoo ñëw mu attaqué ñu ndax nee na corona jël nañ distance gis ngeen ko fu mu toog ak fi ma toog mu nekk nii sama loxo sax daan ngeen ko gis waaye du ngeen ko gis dama koy jox micro bi rek docteur nga wóyal. asalaamaaleykum Feuz comment asalaamaaleykum Diouf caméraman yi di leen nuyu <laughs> tey nee na moom mooy tàllal micro voilà euh, docteur tey la ñu bëggoon ñu waxtaanee mooy feebar bi nga xam te ne sonal na gaay muy jabet xamuñu ci lekk yi la xamuñu ci naan yi la xamuñu ci diw yi la xamuñu ci lan la ci loolu lañ bëgg waxtaanee tey bu ñu noppee ci jabet bi ñëw ci hémorroïde yi léegi dañ lay bàyyi nga woyal diabète kay boo ko waxee rek yaa ngi wax waxu lekk yi déjà ceeb bi ñuy lekk rek y a trop de sucre dedans ceeb bi kese y a trop de sucre surtout ceeb bi di jógee extérieur moo tax nit ñi ñu leen di forcer di leen ñaax ñu lekk riz de la vallée euh, mën na aussi nekk héréditaire mun na aussi nekk ci suukar bi ñuy lekk parce que sucre aussi dafa bëri ay façon sucre dafa am sucre cristallisé dafa am ak yeneen ak yeneen mun na na nekk aussi ci yenn lekk yi ñuy lekk comme par exemple bisaab bisaab boo xamante ne dañ koy suukar parce que bisaab boo ko naree suukar pour nga naan ko tu vas tu vas mettre beaucoup de mën na sax nekk li ñuy ataaye parce que nit ñi tey bu ñuy ataaye dañuy baxal dañuy baxal warga bi mais am na ñoo xamante ne dañuy sotti suukar ci biir baraade bi ba pare baraade bi tegu ci xal bi continuer di bax ak suukar bi suukar boobu day joxe jabet comme aussi am na ñoo xamante ne dañuy dugal suukar dugal naana naanaa bi boo koy baxal ci biir baraada bi day joxe faible sexuelle bu ci mënta doon bu ci mën doon <laughs> d'ailleurs naana ça s'appelle menthe <laughs> maintenant nag naana ordre sax menthe la tudd ci ci tubaab <laughs> menthe la di dosage bi rek moo moo xaw différent dafa mel ni menthe fraîche ak euh, menthe mos dolli boobu mooy bu ñuul bi lépp menthe la pastille <laughs> mant la hmm? donc euh, mun na nekk aussi défaillance pancréas nga bëri graisse sa jabet day yomb nga am poids mel ni yow sa jabet day yomb euh, bañ a sport sa jabet day yomb ne pas trop mel ni man sa jabet day yomb lekk tëdd sa jabar day yomb quoi qu'il en yàlla may nañu boo amee jabet de type 2 nag laa wax de type 2 laa wax loolu ci sa yoon ci bu gën a for bu for <laughs> ku la ku la ne diabète dafa bu for ak bu for diabète bul dugg ci détail yooyu diabète de type 2 laa wax dégg nga même boo ko amee pendant 30 ans soo ñëwee si il faut soo ñëwee fii incha ci kàttan yàlla nañ la faj gis nga tubaab yi dañoo tële si diabète ba am na ay diabète sax dañ koy wax diabète africain c'est dégueulasse ça nañu gëm suñu bopp nag. Euh, ñaata comprimé lañu exposé ñoom tubaab yi yu duma sax tudd fi ñu koy exposé ah parce que je veux pas faire leur promotion ni aussi di yàq seen liggéey mais ñaata médicament yi lañu lañu la ñu yi ñu naan lii day day faj jabet wala day calmer jabet mënuñu sax faj jabet dañuy calmer jabet dañuy stabiliser sucre yi ñaata boo duggee ci seen jaayukaay garab yi ñaata garab rayon bi ngay njëkk jàkkaarloo sax peut-être ñaari rayon yëpp tension yeneen ñaari rayon yëpp jabet xam nga donc dañuy tâtonner euh, ñun ci suñuy garab alhamdulilahi rabbil alamin ñu am loo xamante ne day faj diabète c'est vrai lu mot cinq ans daawoon naa di wax ci rajo di naan képp ku mën képp ku ne mën na fa diabète day fen mais alhamdulilahi rabbil alamin ñun tey yàlla baaxee nañu mën nañ ko faj ci mbaaxam ci mbaaxu Sëñ Tuba euh, alhamdulilah au début tout le monde était te ñëpp nangu nañu euh, gis ngeen résultats yi ñuy def gis ngeen papier yi dégg ngeen sax témoignage tout à l'heure hors antenne benn waay bu bëggoon benn journaliste jël ma ci émission muy ñaan yu ne fi ñaari nit ko e, maa leen faj jabet muy naan man maa ko faj hémorroïde te am amul fu mu demul ci àdduna yónni na ma ay nit faj naa leen hémorroïde bien vrai que nag dafa tàng saañ tàng saañ bi moom ñëppay naan damaa tàng saañ damaa naqari deret nangam nangam jàlloo naqariwul deret jàlloo dafa déggu déggu ak naqari deret bokkul jàlloo dafa am fulla man je ne dans la bassesse sénégalais dañoo bari sénégalais yu bari dañoo bari tappale bokk man bokkuma ci ñooñu dañoo bari cokkaas man kenn duma cokkaas dañoo bëgg miinante man taluma miinante dañoo bëri kafa kaf ak foo xawma ak ay kalante man moom boulot je le respecte énormément wax naa ko waxati naa ko Diallo bu toog di faj c'est un autre Diallo c'est un lieutenant de Dieu inni jaa'ilun fil ardi xalifatan foofu man ma toog moo tax may naan ñëw leen gis yàlla bi ne ci man man ma gis yàlla bi ne ci yéen jàll bi toog di faj ak jàll bi toog salon am ak jàll bi dox ci kuur këram ak jàll bi nekk ci biti di dox c'est diamétralement opposé nit ñi dañu bëgg di kaf nit ñi dañu bëgg di waxtaan alors qu'il y a des ou des centaines de personnes qui attendent man awma temps su ma toogee ku ñëw ma may la cinq minutes je dois par exemple cent personnes ça va me faire cinq cent minutes cinq cent minutes c'est presque combien d'heures c'est presque dix heures de temps wala neuf heures de temps léegi man ma toog huit heures ba dix-sept heures yi liggéey aw ma temps boobu risque diabète a ngi foofu risque prostate a ngi foofu risque hémorroïde a ngi foofu bien que mën naa ko faj te nit ñi aussi dañoo bàyyi seen euh, ité ñëw te nit ki mënul toog di rang huit heures ba midi fekk euh, mais tu gaspilles toute sa journée le temps et précieux beneen bi boo ñëwee boo dul wér booy toog ñuy xuloo sama xol mooy fees duma la gis jàllo du sax xàmmee client am ce que xam nga mën nañu mën naa la yuuxu léegi léegi walla sax ma gëdd la nga wàcc boo wàccee boo yëgaatee sa changé yére dama la xàmmee parce que du ma gis nit ñi yàlla bi ne ci ñoom laay gis fii ku fi mutu musoon ñëw nga gis ne xuloo nañu bu yeboo nga ñaar nga ñëw faju parce que du ma la sax xàmmee man da dama am temps boobu sax te nit bu bon yàlla du def ci moom secret faj ñaata maladie lay faj feuse c'est beaucoup te ñaata résultat def man je ne traite pas je soigne je suis pas comme les gens de la médecine moderne man je traite pas je soigne te li ñuy tëlee lay faj diabète dañoo tële mënuñ ko dama koy faj colopathie bu gën a yomb bu gën a yomb ci samay faj mënuñu ko ñoom dañu lay naan régime à vie te fen loo naa leen hémorroïde mënuñ ko yoo xamante ni tey dañoo ne euh, dañuy faj dañuy faj hémorroïde alors que ñoom ay garab yoo xamante ni ay traitement kese lañ lay ay calmant lañ lay jox su ko defee garab yi su jeexee hémorroïde bu jugaat te yow da nga koy faj carrément ba mu jeex tàkk tàkk tàkk parce que léegi nii rek gis nañ benn témoignage boo xamante ne nii moom seede na ni euh, ay ay ay garab lañ ko doon jox yoo xamante ne nii maanaam garab yi su jeexee rek hémorroïde bi day jugaat alors ko yow danga nga ko faj carrément ba mu jeex te da nga koy jox délai aussi audio boobu sax non dafa tàng saay na quoi mais gaañ bu fort la il est trop fort du moroom gaa yi sax neexul ba neexul ja vraiment li muy tàngee saa yi noonu di wax noonu di doxee xol di mer noon mais noon la garabam efficace quoi man di wax dëgg yàlla man garabam ba mu ko ba pare yàgg na jeex na ba léegi gisu ba léegi sama hémorroïde amul problème te boole naa ko beneen waaye tam même kaaloon ak man hémorroïde moo ko sonaloon am na ñaar yu ma ko boolee jabet tamit même chose nee na kii du nit quoi eh, gars yi des yëpp yëpp seen garab yi da koy naan nii di am jàmm mais bu garab yi jeexee rek hémorroïde déclenché waat vraiment Diallo Diallo gars bi fort docteur Diallo boobu xaw ma nag moom kii dafa bëgg kii dafa bëgg waa ji benn journaliste pour mu jël ma interview waa ji gis nga tontu ma message dafa ma transféré waxtaanam ak kooku déglul premier audio baa ngi. alhamdulilah mais Cheikh neexul yéen woon naa daal nga ama contact Cheikh Abdou kii docteur Diallo gaan boobu Diallo leen trop fort vraiment ni mu ko waxee noonu la demee ko man de yàlla xam ne ni émorite bi bi ma jëlee émorite bi naa ko mais ba mu ko jëlee ba mu jeex ba pare ba léegi nii sax gisatu ma te xoolal gars amul ku ma naanu garab émorite même gars yi évité ñëpp ñëpp presque jël naa seen i garab émorite mais boo ko dee naan ni mën nga am am jàmm mais boo boo paree rek bu garab yi jeexee rek day déclenché waat mais tool Diallo wax dëgg yàlla li mu ci am mosuma ko am ci kenn boole naa ko ay nit ci hémorroïde boole naa ko nit ci jabet boole naa ko ñaari nit jabet ñëpp dana am résultat daal vraiment Diallo bëggoon naa nga amul. ça date de quatre du gis nga tontu moom su ma tontoon nga gis message supprimé dafa bëgg kii jël ma émission. gis nga kii mu ma yónni ay vidéo yi mu def gis nga ay message am dernier message am ma wone ni balaa ñuy xam kaan la parce que tuuram a ngi ci kaw mais dama ne comme que posé na ay question jël na émission ay fenkat ay dóorkat du ma jël ci juste ça je veux soigner mon image xam nga première émission bi ma def ak benn journaliste de Sen TV dama leen ne benn an benn phrase bi Napoléon waxoon en 1700 en 1836 biñ ko tëjee dans une prison à Fort Carré d'Antibes même phrase boobu la Idriss Seck wax bi mu génnee prison en 2006 ci Balcom point E le monde peut me traiter de tous les noms il me suffit d'être innocent ma conscience est le tribunal où j'évoque ma conduite et cette conscience elle est tranquille quand quand on l'interroge phrase bi wax naa ko ci première émission bi may def en mars 2020 parce que je m'attendais à tout Sénégal réew boobu la gëmuñu kenn ki ñu gëm rek muy nit keneen ku wax bokkoo j'ai tout entendu wax nañ ma fii farmaçon la sama secrétaire a ngi nii <laughs> defam ñu ko doon woo di naan dama bëgg nekk farmaçon alors que j'ai juste dit que je connais tous les francs-maçons qui sont là parce que fi ma yaroo muy Gabon ki ma ki ma yar bokk foofu c'était le représentant des formations en Afrique moo tax ñu bëri gis naa leen foofu te ki doon organiser les rendez-vous ma ne la des francs wala même <laughs> xam nga francs-maçons ak Rose Croix bokkul c'était un beau frère moo doon coordonner seen réunion en France c'était le seul noir dedans donc man mun naa leen xam comprendre nga mais ça veut pas dire que man formation la dugg sama mosquée ngi nii formation de mosquée formation de julli formation <laughs> du bind saafara formation du tudd yàlla sax formation est-ce que dina takk jabar sax point d'interrogation ah bon formation du xam Sëñ Tuubaa je crois pas ça mosuñ ma gis man barke Seydina Muhammad monument de la Renaissance xaw ma ko xam naa daal wokkam la nekk te pourtant am nañ fa loge donc <laughs> bu ma doon formation ngay ma dem ci loge wax nañ ma lu ne bi ma fi ne lu sëñ Touba amul soxla ma ko tarika bële laa bokkoon saaga ndey sax saaga nañ ma ndey ci ñi naan xam nañ yàlla di saaga donc man sama pas-pas <laughs> ñoo ko moom j'ai pas de droit d'être d'aimer kii kii kii su ma neexee nekk athée su ma neexee saa nekk franc lu ci nit mën gis nga ko iñaan day day sos di sos di sos di sos waaye su mbokk yi seede xarit yi seede dëkkanu yi seede say jabar seede say doom seede fenkat bi sonn na na uuti leneen neewoon naa la man je vais tout encaisser mais lépp dina leer fekk un an léegi leer na di ñoom ñooñu ñoom ñoo ñoo ñoo ñëw léegi di faju man c'est les médecins même que je traite ñii di tudde seen bopp docteur ak médecin man du ma docteur man sauveur la sama secrétaire a ngi ni combien de docteurs ont soigné si moom xam ne des responsables d'hôpitaux ñëw nañu fi sax tey tey tey tey di indaale seeni jabar ak seeni xaritu docteur ma di traité diabète c'est que tudd tur baaxul kii xam na man sama bureau samay doom samay jabar samay nawle ñoo nekk ci bureau bi et je reçois à ciel du ma tëju bëgg lu transparent man du tëju fee laay recevoir du ma dugg kenn ci salon wala ci néeg di tëj bunt jamais de la vie déjà jigéen bu duggee fii ci néeg walla bureau nga tëj bunt yàlla ne laa taqrabu zina bu leen jege xanaa kay léegi da ngeen dëkk ci biir bi man yooyu duma ko def lu yàlla bëggul safuma comprendre nga léegi lépp leer na samay mbokk sax xamuñu fan laa jëlee xam-xam bi mais ñoom. fàtte nañu def naa sept ans yoo xamante ne ñoom ñëpp amuñu sama écho donc duñu jéem xam sa fan laa jaar parce que ils sont bêtes et nul n'est prophète chez soi yàlla mooy maye te yàllaa ma may ma am le monopole de la médecine ku mu neex ku mu naqari wax naa leen waxati naa leen président yoo ministre yoo billaahi bu leen dem di yàq alal ji France wala Suisse wala Allemagne wala États-Unis wala Maroc ñëw leen ma faj leen seen prostate yi wala seen xol yi seen xol yi ñuy def fii des piles ngeen di yàq xaalisu état bi ñëw leen ma faj leen 40 mille ngeen di fay ci xol j'en connais beaucoup seen cholestérol yi ñëw leen ma faj ko seen diabète yi ñëw leen ma faj ko yaa aucun effet secondaire boo leen dofee ñëw leen ma désenvoûté leen parce que je sais qu'ils se <laughs> qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes ils s'envoûtent ma ne ana ku c'est-à-dire fës ñu wax ci yow man am naa ñaan waajur alhamdulilahi rabbil alamin ku dëkk ak man di ma naw sama secrétaire bi maay idolam man kuma xam dangay bëgg a mel ni man bu dee diine am naa ko bu dee respect am naa ko bu dee xel am naa ko bu dee culture am naa ko bu dee ñaan wajur am naa ko bu dee <laughs> yàlla defal na ma teraanga àdduna bu ne may na ma ko sant yàlla nit ñi bu ñuy ñëw cest dire y a même des voisins yoo xamante ne dañ may yàq ça je le sais très bien des voisins que j'ai payé cinq mille francs par jour comme léegi dàq naa leen fii numéro client bu ñu amoon woo nañ la yàq sa xel mais comme ces patients là aussi sont bêtes yéen boo leen découvrir dara ci nit du ngeen di daw te li ñu wax yëpp ay fen la c'est le contraire que vous en moi parce que daal lekkuma ci ndab li léegi dem ci xëpp suuf man kenn mënumaa yàqal nit ki moo yàqal boppam mais man kenn mënumaa yàqal te ñooñu xam nañ ne on ne pèse pas on boxe pas dans la même catégorie man maa leen doon dundal te il regrette fortement de m'avoir perdu xam naa loolu mosoon naa leen wax ne am jàll moo gën ñàkk jàllo <laughs> cest à gis nga nit ñi nañu dellu ci yàlla damay naan nit yi jarul saa ngeen demati ci sëriñ di ñaanlu wax naa ko ci émission première émission nee leen du boo leen soxlaa gis nga li ñuy wax identité remarquable en quatrième a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré identité remarquable boobu da lay topp si àdduna yëpp lépp loo gis ci calcul foofu la c'est allahu plus Mohammed au carré égale allahu au carré plus deux fois allahu fois Mohammed plus Mohammed au carré c'est 66 plus 92 au carré donc 66 au carré plus 2 fois 66 fois 92 plus 92 au parce que Allah 66 moo mën 92 ça donne 24 964 tuur yàlla boo mënti jël Allah wala rahman wala rahim wala malik wala quddus wala salaam wala mumin wala muhaymin aziz jabbar mutakabir xaaligu barim sawir gafar gahar wahab razak fataw alim kabir 99 évité sublime boo jël nga def ko 24 ñaan yàlla mu nangul la da dem ci sëriñ parce que moo la gën a jege yàlla mais ki ngay dem ngay naan sëriñ la na ñaanal boo ñëwee mu tëj mu tëj néeg bi en tant que jigéen wala mu nuy la may amee mais kooku kay du sëriñ ñuy def tey ñu gis benn kaa boo xam te ni yàggul dara muy kaawu Lobé Ndiaye yàlla na ko yàlla yaram te xaare ko àjjana ak képp kum fa fekk ak benn mara boo xam te ni euh, Sidibé la tudd comme moom euh, moom moom dafa dafa dafa dafa dafa rey kooku kenn xamul lan la si jublu woon parce que daf ko daf ko dafa dafa jël euh, benn objet bu diis daal di ko koy dóor waaye xam naa ne am na ko am na ko ko si jàppale d'après enquête bi li ma liir léegi nag jàpp nañ ko actuellement yoon teg na ko loxo léegi mu waaw Sidibé boobu tey mu nekk koo xamante ni dafa ñëw rek yow turu Mara tey loo xam ne dafa doy waar ce que tey jii tamit jotul yéen Mara ñu xoolaat seen bopp dem bay Mara yi ñooy xoolaat seen bopp ci see le mot marabu dañ ko yàq marabu mooy kuy jàngale alxuraan ak sharia ñii di toog di naan dañuy ñaan nit ñi duñu ay marabu Ndoye Bane jox leen benn tour je crois que c'est mu leen di waxee sax bu xaaba ay bu xaaba lañu marabu yi ñu ngi Fuuta ñoom Thierno Samassa ñoom Thierno Aliou càmm ñoo ñooy ay marabu di jàngale ñi nekk Touba di jàngale alxuraan daar yi ñii ñooy ay marabu mais bu xaaba yi ut xaalis ñooy ñooy ay marabu et puis yow yaa fi tudd Sidibé y a tellement de Sidibé bi y a que Mamadou et Almami que je vois. Et partout dans toutes les régions, ils sont là-bas. Mamadou Almami. Ah, Mamadou Mais pourquoi l'État ne se lève pas à savoir qui est Almami, qui est Mohamed Dans toutes les régions du Sénégal, 14 régions, Mungichi. Takradji, mais c'est quoi ce problème-là C'est quoi ce phénomène moo tax sànq hors antenne lan laa la wax da ma fekk tey ma yenn ay carton ma ne damay jaay ay vaisselle dama yor quota ciment di jaay maa ngi préparé ay place ku bëgg a jaay vaisselle ma ubbi la place wala yow nga ut place ma ma chargé la vaisselle ngay jaay nga ci am ma ci am ma ne la bu doon sama sago état bi day jóg léegi léegi arrêté tout ce qui est tradipraticien loolu laa wax léegi léegi pour qu'on balise le terrain parce que yaa a trop de faux culs, excusez-moi du terme. Il y a trop ñu ngi yàq médecine bi te médecine gënu ko man xam naa loolu xamuñu sax dosage di xaw ma lan nga wax léegi law bi man j'ai même pas été courant kooku dañ ko rey parce que dañoo yëkkati lu dis teg ko d'accord mais ñi ñuy rey en leur donnant des médicaments ñu leen di rey à à a court terme wala à long terme moo ëpp parce que garab bu faju rey implique rey pourquoi jóguñ ci loolu moo tax ma ne dama bëgg sax ñu arrêté tradipraticiens yëpp même médecine moderne sax dañu ko arrêté parce qu'il ne faut aucun résultat aucun résultat il faut la grande gueule la maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont à apporter pour euh, ci coronavirus bi wala virus delta rien du tout vous faites la grande gueule que nous nous sommes rien et vous vous êtes qui maintenant vous êtes quoi maintenant nous ñun ñun au moins am nañu suñuy composition yoo xamante ne bu ñu ko naanee corona mais sañuñ ko tudd parce que boo waxee ñu ne waxati na est-ce que xam nga par exemple man damay faj hépatite B kuy faj hépatite B kay garab bi faj hépatite B mën na faj sida mais est-ce que sañ naa toog ci micro di naan damay faj sida <laughs> kon ñu naan wax naa lu rëy te pourtant hépatite moo gën a grave sida et c'est le même virus en plus ñoom xamuñu sax lan mooy indi hépatite prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le premier à signaler l'hépatite B fi muy naan bàyyi leen di naan di taxaw wala di lekkee main gauche day indi feebaru foie mooy docteur docteur yi moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim ne ko tabibi garibun hal siqaami tasmu yuqaabil ni yowmal muqafal mushafu araani ida ma jiitu yowman muhammadan taxaqaqa maalu kama kama tawaqaw xasida boobu 22 vers la 22 kii la c'est-à-dire la Sadou Fati <laughs> est, est composée de 22 lettres 22 lettres yooyu le composé tapis bi xaribun xal si qaam yattasmu yuqaabilu yowmal muqaffal mushafaw mun naa ko woy nag bi mu jeex de ah oui te woy ñu naar nag laa la koy woyalee mu neex dugg ci xol bi nag ah oui man muzaakir dëgg la kooku moo ko njëkk a signalé boole ci les fruits de mer la ça donne l'hépatite B xamuñu ko ñoom man maa njëkk ne six mois laa doon traité hépatite B mais le cœur et le foie dañuy rejeter un flux sanguin chaque quarante cinq jours mosoo dëgg docteur wax ko léegi bu dee six mois yi deret boobu ñuy ñuy ñuy ñuy def reflux bu doon ci cinquième mois bi la dugg te wéragoo te infecté wala yaram bi yëpp moo tax ma yokk ci deux mois mu doon huit mois de traitement. loolu dafa jaaxal docteur yu bëri ñu ne ma foo jàngee mus naa toog ak sama ñaari xarit médecin kenn ki euh, pharmacien la keneen ki docteur la jeeju mu ngi euh, hôpital de man leen cycle jigéen mu ngi ci loxo ma leen di woon fii deux colonnes fii trois fii trois fii trois ma ne jigéen 3 6 9 12 13e ak 14e jour lay ëmb ma leen fii ma wax leen ne fii boo amul ay treize ça veut dire qu'elle est très bon elle ne peut prendre la grossesse que 13e 14e jour mais mu amee fii ay deux traits yooyu ci 13e jour bi ça veut dire qu'elle est trop féconde au 13e jour 14 yi ak 14 yi mooy 28 mooy cycle yi jigéen mais dañu ne mais où est-ce que tu as appris ça man maa toog naa encore ak ay docteur man leen mu doo leen mës a mën a faj spermatozoïde ku def spermogramme gis azoospermie wala asténo wala terrano wala oligo du mës a wér parce que li koy indi xamu leen ko mooy city city n'existe pas dans le vocabulaire français doo leen mës a mën a faj arthrose parce que siti moo koy indi te yéen ça n'existe par dans le vocabulaire français pour man je me respecte énormément barke Seydina Mouhamed xaqiqa la ñu yor te duma waxantu ku mu neex na nga ñëw faju ku mën a xër nga toog man tekki naa ba pare xam nga nee nga tong ci jaaykatu euh, ndekki bi keroog nga dégg ñuy joone ko man dama cher lu ma la tontu hémorroïde 45 mille francs dafa cher diabète le mois 50 mille francs dafa cher nga am arthrose lu benn docteur mënul faj nga faju 3 mois 40 mille 40 mille 40 mille 120 mille plus cité bi 30 mille mille nga wér arthrose loolu daa cher polyarthrite rhumatoïde nga dem par mois pendant 4 mois ça loolu daa cher hépatite B feebar bu gara bu mel nii am na ñoo xamante ne dañu am moyen di dem ba Suisse dagg seen billet aller retour dem injecté injection bi di yar 500 trois cent vingt cinq mille yow man ma faj la huit mois yi quatre cent trente mille ñu mois ma traité site yi nga xam ne am doom day yàq say règle day perturber say règle day day amoon tey doom mën nga toog dix ans doo amati doom ma faj la am trente mille loolu daa cher sa oom yi néew mënuñ ko faj man ma faj la quarante mille loolu daa cher asthme allergique sportive chronique quarante mille francs ma fajala ko loolu daa cher colopathie boo xamante ne benn benn benn docteur mënu la ko faj ma fajala ko benn prise unique quinze mille francs loolu daa cher dañoo iñaan rek wala dañuy gis sama costume yi may sol oto yu cher yi may dawal <laughs> mën naa ko amee feneen c'est di n'importe quoi bu ma defoon dix francs sax ñu naa dafa cher alors que ñu ngi leen di laaj 200000 ci hémorroïde te gars yi mënuñu ko faj revenance sur bi loolu moo indoon wax ji da nga nekk comme waa ji li mu wax ni de gars yi dañ la jox calmant effectivement calmant la jox mu ñëwaat parce que ils n'ont pas soigné le mal à la racine hémorroïde ci biir la feebar bi di nekk soo génnul feebar bi ci biir bi munoo sax attaqué fajum hémorroïde bi c'est pas possible te boobaa même boo joxee nit ki garab hémorroïde faiblesse sam sexuelle day des toujours ak impuissance sam sexuelle wala éjaculation précoce c' est tout à fait normal parce que fajoo ko ay calmant nga jox c' est du n'importe quoi xam nga par exemple ya des gens yoo xamante ne seen seen peau yi day am pecc wala di xasan rek ñu naan siti la loolu du siti c' est les conséquences de siti siti ak xasan ak heure bokkul xasan heurselé conséquence de sida sida ci dërët lay nekk ci biir lay nekk leneen li ci derme bi la nekk ci kaw la nekk dafa génn bokkul da ngay mais mënoo faj xasan di faj hër wala di faj ongle yi di faj tache yi fekk fajoo l'origine il faut nga faj sida bi ba pare faj li leen gars yi mënuñu sax faj et ces cons là ils répètent même maintenant mais mais samay vidéo la ñuy fanaanoo déglu di répéter mes mêmes phrases c'est moins que rien la xam nga ma maa njëkk ne képp koo xam ne doo wér yàlla bu ñu yàlla boo dugg sama kër ku ajam dul faju yàlla bu bu mu ñëw fi xuur dabb yëpp bu xaaba yëpp doorkat bartu yëpp reprendre moo bi moo tax it gisuñu dara de nag <laughs> ñaan bi nangu na di ñu gis kenn bu ñu génnul tale doo am client est-ce que xam nga gis nga il faut les gens il faut koo xamante ne bu génnul télé xoolal télé ni mu chéré 450 mille ngay fay wal fajiri léegi sax wal fajiri yokk na am na ñu ñu doon defal faveur 300 mille léegi sax yokk na moo tax da ngeen gis kii wàññeeku man je ne je ne vais jamais me montrer là-bas parce que dama xam ne am na ay dóor ne foofu avec c'est une télé que je respecte énormément franchement man bu bu ma doon ñoom duñu ñu dugal gars yi quoi dañuy yàq seen télé parce que noonu lañu ñu yàqee rajo Dunia noonu la yàqee rajo Dunia foo leen romb ñi ñi sant boobu rek ngay dégg éviter ces ces cons là ak seen barbi yi seen mbaxan yi seen bu setul bi c'est du n'importe quoi li ñuy wax sax da ngay xam ne ñii li ñuy wax sax xamuñu ko c'est des conneries quoi et puis ku dugg seen kër ñu nappale mel ni xam ne duñu tous dara xamuñu ko ay dóorkat lañu nañu yem ñu dañoo jàng asraar ba ne man fu ma leen fekkoon ci àll bi dàq naa leen xam nañ ko léegi de mën nañ dem yaataan ñu dumbee Kolda ak Ziguinchor comme nekkatuma fa waaye bi fa nekkee de <laughs> daaw muus daanu foo daaw foon naa ñeex de et puis fenkat yi ñu doon dañ naan sax man eh, ñoo ma doon jaay garab say menteur la da ngeen man li ma am ci garab yéen da ngeen mën a am xaaj gi yéen ay benn siwa ngeen am wala di di di di baxal benn benn non man franchement j'ai jamais vu quelqu'un de j'avais soupçonné quelqu'un rek ci garabu colopathie bi soupçon la parce que xaw ma leen je ne je ne veux même pas les connaître man je man je ne chemine même pas avec ces cons là quand même man lu tax bokkuma sax ci association des tradipraticiens xam naa lu tax bu ñu ma ko laajee naa leen ko wax je ne vais jamais faire partie de ça jamais bu ñu ma ko du ma ko ci bokk et je sais pourquoi du ma ci mës a bokk mosoon naa dem ministère de la santé je parle sur le contrôle de Ibrahima woon qui était secrétaire du ministère de la santé jóge ba Ziguinchor dem ba foofu pour ut sama sama agrément comprendre nga ñu ne ma naa dem ci se euh, kii ci kii bi ci suñu suñu direction boobu euh, pour tradipresse ma dem foofu ñu ne ma léegi da ngay dem nga nga bokk ci association bi nangam nangam c'est pour le moment loolu nga mën a def ma ne je ne ferai jamais partie de ça parce que je ne je connais des cons qui sont là-bas et qui sont même des des, des dirigeants te ñooñu bu ñu xamoon ñooñu duñu duñu bokk ci ci ci association bi parce que ñoom tamit. dirige mag ñi dañ lay wóolu parce que euh, munoo ne mun parce que ñoom peut-être ay nitu dëgg lañu mënuñu gis fenkat ñëw rek naan ci ñoom la bokk ñu rejeté la aussi c'est pas structuré quand peut-être comprends nga parce que dama am dama xam ay fenkat yoo am yoo am boobu peut-être ñële ils n'ont pas pris tout tous les devants quoi pour enquête ci ñoom walla sax peut-être nit moo leen di naan kii loolu la comprends nga te xam naa ñooñu sax fi ñuy jëlee garab donc jànguñu ko après man ma bokk si ñoom non non ki ki ma répondre nag encore saaga ma c'est pas mon problème duma ci bokk nañuy ñëw xaw ma il n'a même pas le droit de faire mon cabinet personne n'a ce droit là personne n'est de taille à le personne n'est de taille laa la wax de à m'arrêter man ci ci li may def personne, je dis bien personne. Ce travail, je le ferai, je le pratiquerai tant que j'aurai le souffle. Quel monde m'a def Parce que je sauve des vies. Et je suis plus important que le ministre de la République. Parce que je sauve des vies. Le Sénégal me rejette. Je prends mes, mes clips et mes crapes. Je, je m'en vais en Mauritanie, voilà en Gambie. on préfère me, <laughs> me, me culpabiliser. Voilà, ah tiens, ils n'ont qu'à le la culture sénégalaise. Je crois pas. Je dis, je pèse mes mots. Personne, nul n'est de taille, man, à m'empêcher de faire mon boulot. Il faut que nous ratissions large, il faut que nous, nous c'est-à-dire Cette médecine, c'est une bon médecine. Elle est mal pratiquée au Sénégal. ñu ngi koy yàq te bisarment ñi mën waxuñu man parfois j'ai même honte billahi j'ai même honte de prendre le micro j'ai même honte de faire des émissions parce que ñi mën dëgg ñu ngi noppi boo damay mel damay mel ni ci ci clan boobu laa bokk xam nga j'ai un ami bu bokk ci yéen dafa am benn waay bu ma bëggoon introsé ma ne ko kooku du mus a introsé gis nga c'est pas pareil que gis nga mu ne ma du gis nga faut éviter qu'on vous mette dans le clan des charlatans qui ont déjà perdu toute crédibilité vous avez déjà gagné le respect des Sénégalais et les étrangers gis nga man xam naa sama bopp j'ai toujours di que ministère de la santé na ma woo nañu def enquête ci man na ñëw toog ak man nañ pas enquête sax mais nañ ñëw laaj Diallo c'est quoi c'est quoi ce phénomène Diallo nooy fajee et puis ñu def même ay enquêteurs toog fii ci bureau bi xool combien de résultats on fait qu'ils prennent le temps de me suivre au moins un mois. Si je suis utile à la société, mais c'est un honneur pour le Sénégal. Si je suis inutile à la société, mais qu'on me prenne, on m'enferme à vie, c'est fini. Ou bien qu'on m'interdise de faire ce que j'ai fait. loolu laa bëgg mais de par là que ça soit maintenant nag un sacrifice pour que tous ces charlatans là on les élimine on les supprime sur la liste loolu rek mooy dëgg gi pourquoi pas wala ma retourner Gabon dara ah ci loolu la ñuy gaaw daal au lieu de faire des enquêtes sur les biens que j'ai fait là on sait que le plateau médical est trop faible on voit quelqu'un un petit Sénégalais un couillon